koo xamante ne euh, mi ngi de mi ngi nekk ci bërëb war a def liggéeyam te defu ko lan la ci islam wax jërëjëf Youssou euh, comme ni ñu koy waxee rek mooy par rapport li nga xamante moom moo xew si jamono. ndax ñun ñëpp ñu ngi dégg li nga xamante mu ngi xew si hôpitaux yi ñu di leen joxoñ baaraamu tuuma si waxin mais mbir mi man dama ko gis ne dem na ba au delà. Mhm. tey jii secteur boo xamante ni doomu aadama bi nekk nga fa rek war ngay fexe góorgóorlu ba saa su nekk nga dégg comme ni ñu koy waxee maanaam gongo. Mhm. maanaam nga def fa loo xamante ne ni ëllëg si bu ñu fi buñ ñëwee dinañ nekk diw jaaroon na fii moo fi def lii diw jaaroon na fii moo fi def lii mhm. ndax euh, li xam ne moo di liggéey d'abord dafa war a lalu si li nga xam ne moom moo di xam-xam moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu njëkk a wax ak ñun dañu ne dañu dem uti ji xam-xam xam-xam nag du ne qaala allaahu rek wala qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam menuisier bi li muy def xam-xam la caméraman bi li muy def xam-xam la mécanicien bi li muy def xam-xam la képp kenn si ñun lépp li ngay yëngu rek xam-xam la boo xamante ni mën na jariñ ki nga xamante ni moom moo di doomu aadama bi tey ji kaay bi ñuy jël muy li nga xam ne moom moo di wàllu xam-xamu médecine ndax boo xoolee mag ñu baax ñi ku mel ni ku mel ni Cheikh Al Hadji Malick radiallahu taala anhu ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu anhuma doon nañu wax ne bu ñu dellu woon nekk ndaw bu ñëwee di wutaat xam-xam xam-xamu docteur la ñuy wut maanaam koo xamante ni day faj doomu aadama mm. lu tax parce que tey jii nit ki su feebaree ñëw si hôpital bi wala ci euh, euh, poste de santé bi yow nga faj ko ba mu delluwaat mën a jaamuwaat yàlla lépp loo xamante ni am na ko si yiw si jaamu yàlla boobu yéen ñaar yéen a koy bokk kon li jaadu li war mooy képp koo xamante ni da ngay yëngu si mbir mu mel noonu bu doomu aadama bi ñëwee ak ku mu mën a doon ngeen bokk diine ngeen bañ a bokk diine na doon nit rek yàlla dane la xad wala xadd karam naa bani aadama mhm. dama teral doomu aadama kon bu ñëwee accueil bi na nekk accueil boo xamante ni bu dal lay doon mhm. bu bu bu am solo lay doon bari na ñoo xamante ne ni li yokk seen feebar feebar mooy accueil bi accueil day wàññi méttit waaye itam day yokk méttit am na noo xam ne boo ni ko ñëwee ñu accueillir la ko mm. eh, sa jàngoro day daal day yokk toogal fële defal ndànk lii lii ba stress la yokk la jàngoro loolu day nekk loo xamante ni lu doy waar mais tamit dina wàññi li nga xam ne moo di méttit nga ñëw ñu jël la teg la si bërëb ëpp la wala fu am climatiseur dalal la mm. ba sa xel wàcc loolu rek mën na wàññi li nga xamante moom moo di souvent sax sa sa jàngoro du bëgg di jël euh, européens en exemple parce que man dama dama gëm Afrique aussi mais euh, booy comparer par exemple suñu accouchement yi boo demee foofu dañ lay maase di bës sa tànk yi di la neexal Ahmed Tidiane si ba yow métit bi day wàññi te fii souvent jigéen ñi day am yenn wax yi nga xamante ne malheureusement dañ leen koy wax tey ñu ngi ci métit bu garaaw jël leen exemple nee na hmm. ñun ñooy jàng alquran waaye nasaraan yi ñoo koy jëfe ñun ñoo koy jàng ñoom ñoo koy jëfe maanaam li nga xamante moom lañ si digle li si ëpp boo demee dalal gi ak yu ñu doon wax yëpp yooyu day nekk loo xamante ni ñoom ñu koy fekk beneen bi aspect bi mooy nit looy liggéey day fekk nga bëgg ko am amuram mais bu la si xaalis dugalee wala ñàkk pexe wala wut salaire yow boo demee ngeen baal ma si kàddu gi je m'en foutisme moom ngay nekk. da ngay waa wàcc ñibbi sax. merci sama yoon nekku si. ma jox la mm. benn exemple du ma tudd euh, euh, euh, lieu bi mais réew mi am na fi ko xam ne bi ñu ko joxee benn hôpital si waxin. Mm. pour wax la rek jaay bi ñuy xëy se wara pointe pointé fiche la ñuy yor man bu ma ñëwee. Mamadou Ndiaye bu ñëwulee man maa koy pointel pointel ñëpp te bu xoolee personnel bi ak lii di pointe day day day day wuute. Mhm. xool li pointe nekk cent nga xool personnel bu nekk trente ana soixante dix yi. mais mujj gi nan la def dafa dem wuti beneen kii pointeur muy lan empreinte ma ne ko tax la mu ne ma baaraam kenn du ko yóbbante. dëgg la. mu ne ma baaraam ma ne ko mu ma kenn du ko yóbbante maanaam amour si li nga xamante ni moom ngay liggéey dafa nekk loo xamante ni lu am solo la mais bu la si xaalis bi dugalee yàlla defal la loo xamante daf ko xañ ñu bari parce que boo xëyee tey da nga ñoo xamante ni saa su nekk bu ñu xëyee ñu ngi wër di wut liggéey yàlla dimbali la ba yow am nga liggéey kon li la war mooy liggéey boobu nga góorgóorlu si fas si jom nga xam ne nit ñi muy xëyee di wuti xam-xam ñu ko siy bindal yiw yow aussi boo xëyee di dem di liggéey nga foog ne ñun ñi toog fii ñëpp liggéey li ñu fiy am par weer rek déedéet yàlla dafa ñuy bindal ay yiw mhm. ndax moom moo digle liggéey digle li itam li nga xam ne moo di daan doole kon liggéey bi il faut ñu xam ne au delà de salaire bi am na pay boo xamante ni payooru suñu borom la beneen bi mu bañ a nekk loo xamante ni dañ la koy lijjantil maanaam nga xëy rek am benn ndijaay wala benn pap wala benn bàjjen mu lijjanti la bañ dugal la ci benn structure sanitaire ngay ñëw commencé di pikiir di nangam yaramu doomu aadama kenn du ci def stage kenn du foo doomu aadama du kobaay yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa ne wa man qatala man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fil ard fa ka annama qatala annaasa jamian nee na képp koo xamante nii da fexe ba benn bakkan jaara si yow rot wala nga sàggane dund doomu aadama ba mu yàqu mel na ni yow rey nga toute l'humanité maanaam fi yëpp waaye képp koo xamante ah ni góorgóorlu nga ba sobee benn bakkan mel na ni yow sauver nga toute l'humanité lan moo tax yàlla wax loolu léeg-léeg nga faat wala sa si sa sàggante si waxin parce que lépp bu ñu ko wér yàlla aussi yàlla daf ñu jox ay xel bu wax bu doon loolu yàlla du ne kenn ku rey wala nangam danaan man maay rey mais nee na ku sàggan ba doomu aadama jaare si yow jënn àdduna yow rey nga humanité bi parce que ka nga faat xamuloo ëllëg la la doon jëriñ réew mi la la doon jëriñ àdduna la la doon jëriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo di fameem kon loolu nañ si bàyyi xel bu baax baax beneen bi mooy autorités yi ngel la wala ngel la góor mm-hmm. góorgóorlu wax nañ ko sànq bi ñuy tàmbali émission bi euh, structure sanitaire yi ñu fexe ni ñu leen équipé parce que man dama indi wu wax dëgg du wàññi wërsëg dañ lay jox ministère ne la yow yaa yor njàngale mi mm-hmm. ñu dénk école publique nga jël sa doom yóbbu ko privé c'est parce que yow xam nga ne école publique bi baaxul mm-hmm. te yow suñu salaire lañ lay fay. charité bien ordonnée commence par soi-même suñu salaire lañ lay fay suñu ay impôts ñun sénégalais yi di la ko fay pour loolu mën a jag demal si àll bi ay abri ay abri provisoire nga ko fay fekk te ñiy ŋànk mbir mi amul kenn si ñoom. koo xam ne doomam day nekk ci abri provisoire di jàng parce que xam nañ ne condition yi pour xam-xam bi dem ci xale bi réunirul kon bu ñu la wóoloo ba denk la da koy mate mat li nga doon nga xam ne ëllëg dañ la koy laaj yonent bi sallallahu nee ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi nee na ëllëg dinañ képp ki su ñun sàmm la te dañ la laaj li nga doon sàmm fi ma doon jeexal si ñaari mm. seconde rek mm. mooy nee na yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ëllëg yowmal qiyaam amul kenn koo xam ne di nga séexi jéego te duñ la laaj ñeenti yi sa ndaw si lan nga ko paase sa dund si lan nga ko jeexale sa alal foo ko jëlee ak foo ko def surtout loolu sa alal foo ko jëlee ak foo ko def mais bu fekkente ne yii si xew yëpp mën ñu ko wax lépp si njuñ jaaj ak tappale parce que doo liggéey ba pare di fayeeku ba pare boo bëggee ne allahumma wala rabbana yàlla nangul la mhm. nax nga sa bopp yoonu sallallahu alayhi wasallam newoon na daal si gàttal mhm. nan ngeen di solee lu araam di lekk lu araam di naan lu araam di tëdd fu araam ba pare bëgg ne yàlla allahumma mu may leen loolu mu dul lekk kon mag mu jaaxaan di tuur ndox boppam rek lay tooyal nañu waxante dëgg mettre les points sur les i mhm. ñu xam ne réew mi yëpp ñu ko bokk ñaari secteurs yi nag fu mu sooxee si réew réew mi du muy éducation sant jërëjëf oustaz wax ji foog naa ni kenn du ci teg dara euh, nag ku nekk nag ku nekk def li ko war daal bu ñëpp defee li leen war euh, ci avancé la ñuy dem waaye en attendant